ñoom ay difficulté yoo xam ne ci wàllu koom ci wàllu nekkin ñu jël nit ñi di tëj ràpp mel ni ku ne cib lido ome mbaa dugg cib kaso keneen lii ci boppam moo jaaduwul ci réew moo xam ni nee ñu Sénégal mu am liberte ñu war a respecté ak ak yelleefu doomu aadama yi waaye France moom gëy naan ci yéenekaay bi xam nga réew moo xam ne koom a ngi fa ndax Sénégal loo ci manti dee git gisuma daanaka réew mu ko gën a riche lu ne loo xalaat ma ni la am na ci réew mi waaye suñuy njiit ci boppam ñoo nekk ay cuune defaruñu xanaa yàq wala yi duufal seeni gafa buñ taxawaloon ay politique yoo xam ne la ñu am daañu ko mën a sàmm waaye tam la nga xam ni moom nañ ko ñu fexe ba Sénégal jënd ko jëfandikoo ko yokku la nga xam ni moom moo di suñu am am suñu meññeef suñu li ñuy bay bu ñu soobu woon foofu kese képp Sénégal rawi maasam ci Afrique bay laal yeneen dëkku Europe waaye fi mu ne réewum Sénégal taluñu loolu dul jàppe ay opposant direct ci niitu naan maan Bougane Gueye Dany ma ngi naan président Macky Sall teggil sa tànk fi nga ko teg baaxul l'indépendant yéen kaay naan maan moom jiital gëm sa bopp ma nga naan Sall ngaari lam tooro buur géde la nga war a njëkk def ci réew mi moom moo di daal di libéré Ousmane Sonko nu mu gën a gaawee le regard naan man ma nga yor ay missile tuy tuy moom bugaan te jagleelu ko kenn ku dul président Macky Sall ma ngi koy yedd nag naan sàll déglul ma wax la gis nga président Macky sàll sama maam waxoon na ma ñett yii bugaan gay danay wax de naan koon nee na ma woon boo meree deseel sa ngor yow président Macky Sall sama maam daan na ma wax naan man boo tiitee deseel sa fit yow président Macky Sall sama maam daan na ma wax naan boo ñàkkee deseel sa ngor naan kon kaay ma yedd la le regard naan kon nee na ko la ca face boo yawa ndax politique bu baax nga tegalul ndaw yi moo taxit ñuy fàq gedd génn réew mi dem faatu gën a leen toog ci réew mi l'info yéen a kaay naan man ma ngay woote jàmm moom bugaan gay dani naan juróom benn weer jàpp juróom ñaar moo des ci élection yow sàll lu mënti xew ci réew mi dang ñuy abal te abal googee bul yóbbaale kenn defar ay élection yoo xam ne ñëppay bokk nga la waaye président Macky sàll l'indépendant yéen kaay naan man ma nga ko koy ñaan ci njëkk ma nga naan kon Ousmane Sonko fi mu toll nii feebar na ba jaaxal aw askan bakkanam Ousmane Sonko wopp na ba askan jàpp ne bakkanam mi ngi ci xottu gerte yow président Macky Sall boo seetaanee ba Ousmane Sonko des ci say loxo dana metti te daa ko rëccu wala l'évidence yéen kaay naan maan moo taxit bugaan a ngay woote jàmm naan kon président Macky Sall loo mënti def te génn woo Ousmane Sonko ma ne la defoo lenn l'exclusive yéen kaay naan man ma ngay dar dari de di dàqi président Macky Sall ngir jot ko fàttewul Ousmane Sonko ma ngi koy ñaanal njekk waaye tam ma ngay dal ci kaw xalifa Khalifa Ababacar Sall bugaan a nga naan seeyal Pastef bi du dëggu ci yoon jaay doole la ma nga naan jàpp gi ñuy jàpp doomu aadama yi te lan teg ci seen ndodd ne moom lañ leen jàppee dëgërul du dëgg du yoon xiifal gi ma ni la nañ ko dakkal ci mim réew élection yoo xam ne ñëppay bokk dafa war a am ci réew mi détenu politique yi nan ci wax l'exclusive naan maan ma nga naan situation socio-économique bu réewum Sénégal métti na te ciu nekk président Macky Sall ak bu Amadou Ba moo ñu ko teg sénégalais yi rawatina góorgóorlu nekk ci njàqare goo xam ni maar day taali le point ak ci naan géye nga naan leen talu leen lenn lu dul daw dàq yoo xam ni defuñu leen waa grand place naan maan moo taxit ci njëkk ma nga naan kon ci njekk rek doxalal politique gu réew mi deux minutes pour lire l' essentiel naan maan bugaan fàttewul Khalifa Babacar Sall le point yéene kaay naan maan gannaaw ba mu ñaanalee njëkk Ousmane Sonko turbine naan kon dafa dal nag ci Khalifa Babacar Sall ma nga naan lu toll ci junni juróom benn fukk ak benn ci prisonnier politique ñi ci réew mi jàpp gi mel ni tulleeg maale te lépp politique dong moo ko waral gaaya bañ ko laajee naan kon yaa ngi dal ci kaw Khalifa mu ni leen xam ngeen Khalifa Babacar Sall warul waa yeewi askan wi kese askanug réewum Sénégal ñëpp la daal di war waaye tam génération boo xam ne dañu jàppoon ne loo ci mënti am xam nan ne seen politique bu njëkk lajj na système bi baaxul dañ ko war a soppi moom xaaf nag bokk ci boobu le système bëgg mu doxaat ci réew mi duñu ko nangu te naan leen lii président Macky Sall nekkee ci réew mi manu leen ko ko jiiñ bàyyi Amadou Ba mi nga xam ne mooy premier ministre am yoor yoor naan maan moom Bougane Gueye Dany daal ma ngay ñaan Sall ngaari lam tooro Bourguédé mu doon ab gentleman te libéré prisonniers yi réew mi ko di ñee naan maan coowal Ousmane Sonko dakkagul mbir mi daal daal dinay rëpp ay avocat dugal ci seen loxo xeex bi mbootaayu xeet bi presse internationale bi daal di ciy dugal loxoom yéeni kaay bi naan maan Ousmane Sonko daal di ximmali ko amuk féex ay ñoñam le témoin yéene kaay naan maan maître Ngagne Demba Touré daal di nay daw làqatu ji ca ngir bañ dig daal di koy jàpp mu daal di daw gàddaay niki ñi ko fi jiitu woon nañ ko defee woon 24 heures yéeni kaay naan maan booba Bassirou Diomaye Faye ci boppam ma nga des ca kaso ba Walf Quotidien naan maan ma la ba ñu seeyalee parti ba tey terewul jàpp gaa ngi mel ni tulleeg maale ci réew mi bugaan gay dana ci vox populi naan la ma leen wax rek nguurug Macky Sall ci boppam seen ay gée lëndëm boobu Walf Quotidien ma ngi may xamal ne moom sëriñ Muntaxa mu tedd mi day ma ngay woote jàmm di woote ndaw yi ci dal waaye tam di woote ndaw yi ci ndorteelu safaar gii tey ñum bu boo téere rek yàlla wi jàng alxuraan ci fuñ mën a toll waaye tam soobu ci xasida yi moom sëriñ Muntaxa borom ree ji di woote jàmm ak dal ci réewum Sénégal critique yéeni kaay naan man boobu jaxasoo am ci kër président Macky Sall làmbaatu goo xam ni maa day taali ci xool kan la ñuy tabb l'observateur naan man président Macky Sall de nee na noppi na ki mu tabb mi ngi ci xelam mi ngi ci boppam te fan yii moom président Macky Sall dina ko wax critique yéeni kaay naan maan en tout cas ku bàyyee combine yi waaye tam yàqante der yi ma nga mel ni tulleeg maale Diouf Sarr nag fas yéene suufu bun Abdallah Jonn Mamadou Yaya Ba bu ko kojèr géeja waaye naan leen mani la manipulation bi ci boppam moo war dakk gaa yi génn di wax naan ñi ngi ànd ak diw wala ànd ak diw nañ ko dakkal ndax ko kojèr ñi ngi déglu président Macky Sall Sall ka mu tabb moom la ñuy àndal te ka mu mënti tabb ku ne département bu géeja waaye moom la ñuy ngemb ndax président Macky Sall Sall la ñuy kamu ngemb mooy seen mbër ci élection présidentielle yi manipulation bi na dakk wax joo xam ne du dëgg ak diw ngemb na diw gi na dakk ndax président Macky Sall nag mooy seen njiit kam leen tabal lañ war a àndal te looloy dëgg Moussa Fall bokk ci ñoom ci turbine yéen a kaay naan loo ci manti déggit waa Benno ak kun mën a tabb élection présidentielle yi moom mënuñu koo gagné ndax na coalition ba ci boppam moo daal di tas mergaa bari le point yéen a kaay naan man ñi ngi waajal màggaluk Touba fas yéene nag jafe ndox ca Touba moom Serigne Mountakha daal di activé waat Touba ca kanam le point yéene kaay naan man ña ngay def maintenance ba nekk ca courant ba waaye tam ca liggéeyu forage ya fa nga xam ni moo am fuite ak taataa ndox yi sori ñu daal di ci wutuk saafara daaru mar naan la teree fëkk forage ba ñu daal di koy liggéey lay jafe-jafey ndox ca ndaam ñu daal di koy saafara ca kër ñang ak ndaamaatu it yéene kaay bi naan man Touba ca kanam ma nga ca diggam ak ofoor ñuy xool nees def ba Touba du am jafe-jafey ndox ci màggal gi tribune yéene kaay naan man jafe-jafe kay jugul ci réewum Sénégal yéene kaay des média bi naan gi be Papa Dieng ci réanimation ko di quotidien naan maan maman kundul ëmb na la ñuy wax amul ba ñu ko fekkee ma nga doon génne deret libération yéen kaay mel ni ku naan ko déet moom maman kundul ci boppam moo xamal enquêteurs yi ne leen mësta ëmb boroom këram ak rakku boroom këram ñi defoon génn crime la bëggoon tiiñal libération naan maan waaye wax jooju sax du dëgg ndax enquêteurs yi nag xam nañ ne moom maman ci boppam dafa njëkk njortu ne dafa ëmb wax ko jëkkëram lii tax mu jël ay morceau def ci biiram ba mu sakkan wax ni dafa ëmb soxna sa nga xam ni moo woote woon di wax ni maman feeñ na Castor ndekete xaritam benn bakkan la xale bu jigéen ba ci boppam libération ne ma moo fatoon maman këram ca Castor jàpp nañ ko ka génnoon ca site ya di dëggal jàpp gi ak ëmbug ma gi giit ma nga woon ca Cuba jàpp nañ ko xale bu góor ba jotoon ñeenti junni ngir bokk ca Cuba doon dëggalit jàpp nañ ko libération yéene kaay naan maan pour débat bi jeex gynécologue bi ci boppam moo xamle ni moom maman mësta wasin l'observateur naan maan fii la réew mi toll ak lu mën a am maman wax na dëgg enquêteurs yi ngay tëdd muy naaw système bi ñuy xeex mooy tax politicien di nekk milliardaire alors que alalu réew mi lay randal système bi ñuy xeex mooy politiciens yi ñoom ci seen biir ay nit sàcc xaalis ñu wut madaar sang ko ba mu set raxas ko jàkkaarloog ñoom tegaat ko ci kanamu askan wi naan leen kii mën naa nekk seen président sénégalais yi yeewu nañu sénégalais yi yeewu nañu am na ku may wax sànq ne ma oui mais xalifa Sall euh, est-ce qu'il a trahi l'opposition je dis non Khalifa Sall n'a pas trahi l'opposition xalifa Sall a trahi tout une génération ay yaakaar yu bari bari bari lañu tas politique gu tappale politique gu dóor marto politique gu toog muy dox politique gu randal alalu réew mi après ngeen sangante ci seen biir yëf bi romb sénégalais yi nekk ci ñàkk sénégalais yi nekk ci toroxtànge réew mi metti ñi am di am ñi am alal di gën di am alal ñi ci suuf du ñu am dara pour nga faju c'est un problème mais bërki démb dama gis ci document yu ñu ma jox kenn ku waroon dem euh, def scanner IRM xaw ma nangam sàngam ma gis yëf bi mu nekk deux cent mille ma ne mais deux cent mille ñaata sénégalais ñoo mën a fay deux cent mille pour loolu ñaata nit ñoo feebar te mënuñu am accès à loolu et pourtant boo demee France wala ci yeneen réew yi fexe nañu ba seen population du ñu nekk ci situation yooyu système bi moo fi indi lool système bi moo fi suuxat ñàkk moo suuxat pauvreté tey jii